jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte euh, comme niñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii nag ci parcelle Assainies ñëw seet fi kenn koo xamante ne kenn du ko présenté Sénégal euh, muy Batika euh, tey moom lañu ñu seet si ngir bëgg a waxtaan ak moom ci lu baree bare ci réew mi lu baree bare ci làmb waral wasaare làmb déplacé wu ñëw ngir seet si ko njëkk nañ fee ñëw waaye naam Euh, nit di nga bëgg waaye suñu borom du ko sottal tey nag xëy na la ko yàlla suñu borom dogal ba waral ñu ñëw seet si ko Barika maa lay nuyu. waaw jili ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu santee yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu ñaar waajur maanaam ñu ngi lay sant di la jox sa wàccuwaay ak seet si bi ñu seet si am di la ñaanal kontaan nañ ci wér a wér am de di ñaanal wasaare làmb fu ñu bëgg a dem daal ñoo ko xam. waaw yàlla na ko suñu borom mi nga xam ne moom moom lépp si ñëpp la ñuy ñaan yàlla na ko def ba ngeen kontaan ci daal yéen ñëpp waaw rafetlu sa jóg ak sa taxawaay Batika fan yii damay gis site internet yi ñu bare bare bari ñuy daw ñëw ci Batika di ko laaj di waxtaan ak moom loolu lan la. waaw loolu comme nit comme nit boo nekkee nitu nit ñi am déet nekk maanaam nekk ci siraatal mustaqim doon bëre ba yàlla def ni am déet ba tey maa ngi ci làmb ba tey mais charia laay gën a am loo xam dama ci at ndax ñëpp xam nañu man su ma waxee man charia man amul kenn ku may par parloo hmm. man daal lislaam rek laay atte lépp loo xamante ni mën naa wala ma wax dëgg amul ku ma ciy neexal am de mu doon tax nit ñi commencé ku damay ñëw sax nit ñi di ma jël di ma damay bañ ba mais nag comme comme ay nit lañu te ay xal la ñu ngi wut. Mm. te ñun ñëpp benn lañu xam-xam boo koy yokk suñu borom da lay bindal tiyaaba moo tax daal ku ci ñëw daal loola laaj daal wala mu jaaxle la boo ñëwee ma am ci xam-xam daal foog ma wax ko ci moom ci doole yi sëñ Fallou Mbacké. Mm. waaw ji. Euh, ñëpp seede nañ ab taalibe nga loolu moom kenn waxatu ko euh, mais Batika làmb bi nga ci duggee ba léegi euh, fi mu toll ni ñu bari dañ naan Batika bàyyi na bëre. Euh, bàyyi bëre boobu est-ce que dëgg-dëgg Batika bàyyi na bëre mu ngi ci leneen ci yeneen business am wala ba tey da ngay di bëre. waaw ba ba tey man ba tey maanaam comme maa ngi ci làmb ji ñu bëri mag ma ci làmb ji ndax boo dee xool tey Eumeu Sène moo ma mag Bombardier moo ma mag ay Abdou Diouf yu mbaale ñoo ma mag te ñoom ñëpp kenn xaajul bay retraité Ousa Sow ma mag soixante-quinze de judd te retraité te moo a jàngal bëri am de te yokkaat nañ ci te man presque sama 40 ans mi ngi soog a nekk dese ci làmb 5 ans plus 3 ans yi ñu ci yokkaat muy 8 ans am den loolu tey mën naa ni promoteur bi nga xamante ni fay na ma prix boo xamante ne jox ma ñi nga xamante ni ñoo ko jar mën naa bëri ñoom mais du bëgg ñu ma wax yenn genre mbëri yoo xamante ni day metti sama bopp soxloo ma mbëri yooyu am den ndax ku bëreeg ay ponkal am de tête de file waalo ma bëreeg moom muy la dëggee am de tey kooku tey nit moo nit waratuma bañ ci Sénégal am de gàll nag mooy de gàllankoor day am roi des arènes ñëpp ko bëgg mais ñu ko nekk bëriwuñu waaw mi ngi noonu ñu ko nekk bëriwuñu comme nañu xam ne tax ku ko jëlul man jëluma roi des arènes am na yeneen mbër yoo xam ne ñu ngi daan te jëluñu ko kon ñun ñoo yem waaw ñi nga xam ne nag ñoo ko jël nangu nañu ñoo ñoo ñu raw mais képp koo xamante ne juróo roi des gàllankoor la ko tax ak ma ne gàllankoor ñoom ñun ñoo yem ci loolu waaw euh, sa diggante ak Lac de Guiers dinañ ci ñëw mais Batika bi ngay débuté sa carrière ñu bari dañu gisoon ni Batika mi champion la Euh, yor na maam naam gabari bi yor na taay bi yor na bëre bi surtout ñu dem ba bëcc ba ci digg bi ñuy gis benn batika bi nga xamante ni dafa mel ni su waxee ñu ci bari ci làmb dañuy fàtte ni kii champion la mais comme comédien lañ koy jàppee ci làmb lool lan la ba boo parce que boo seetloo dañ naan adversaire am liiru jaan la wala wulli la wala aadama Diouf la lan moo tax ñu classé la foofu. waaw dëgg la xam nga nit moom ñoom mbër comme tey ñi nga xam da ngay dem ba nga xam ne bëri ñoom ay liiru jaan yooyu ñuy ak wuli ñoom làmb defuñu ci dara léegi dañuy mbër nga xam ne ñoom bu ñu demoon laaj seen tête de file dañuy xam ne bokkuma ak ñoom xëy na boo waxee ma leen ba may ba ñuy njëkk a a tontu mais dañuy yor jàngal leen bëri xam nit da jox nit cër ndax man bu tey jën ña nekkoon seen ceef ay tafaatin mu seetaan ma Assane Diouf may bëri moom war ko ndomba moom tey cër war na ma koo jox am de mais comme xale bu joxul ma cër xale comme go xale moo joxul mag cër asama mag mag man du ma ci noppil benn gone tey yow boo doon jotoo sa grand frère bu ñëwee ñaan yaay xale noppil man du ma noppil gone ba illah yow mi diini gone gu ma ni sëq man la aw la loolu aw ma sax sikki sàkk ndax man sama comportement ci làmb ñëpp a ko rafetlu bu amul écrit boo dem ay ñoom Ousmane Diop bu Thiaroye sax dañuy dégg interview boo xam muy wax ci man ma ma daaw mësuñoo daje mais déggoon na samay mbir ak samay jumtukaay mais ñoom bu ñu demee ba ñëw commencé euh, dañuy bëgg pour ay wut laam te lamb demeewul noonu man mbër laa wulli boo ma doon fay deux cent milliards soxlawu ma ko liiru jaan doo ma doon fay deux cent milliards soxlawu ma ko maag ñoom du du génération bokku maag ñoom fekkee xaalis moo la tax di bëre naam combat bi tey bu ñu la fayee prix bi la arrangé war nga ko mën a jël mais dëgg mais liiru jaan tey dem na bëri xaadim Ndiaye mu mag xam nga loolu du làmb xam nga gis nga yooyu te mi ngi noonu ñu ay xaadim Ndiaye te xaadim Ndiaye ba muy takk làmb di bëri ñun fa ñu ñu woon sax dëkk xaadim a jël xaadim Ndiaye naan léeg lii xaadim Ndiaye wàcce boppam xam nga ni fekk xam ne loolu yu jaar ba bëri xaadim xam nga ne loolu du làmb xam nga ne loolu du làmb nit am na fooy toll bañ buñ la gisee ba nga xam ne nit sa làmb kiyeetu na nga toog si dañuy yaakaar ne yaa ba bëgg la indi foo xamante wala man man nee naa leen làmb du ma comédien ma déggu man charia lay att di bëri dama bëri bëri di jox samay preuve daan fi ay ponkal nit ñama daan ñoom sañ ñu leen dëkk te ñu ngi fi bëri naag Pape Tine syndicat dama koo daan est ce que ñoom dëkk nañ ko Cheikh Kan doom Pape Kan bu Caaroy dama koo daan est ce ñoom dëkk nañ ko Jaguar dama koo daan mu dem États-Unis Youssou Diop bu Caaroy laasana bu Pikine ah am saa ñàmbur est-ce que ñooñu dëkk na leen. xam moom nag li ñuy wax mooy Batika mi daanoon Laasana daan Jaguar daan euh, yenn champion yu bare bare bëri du Batika moomu la ñuy gis fi mu toll. non en kay xam nga làmb gis nga man lépp sa maanaam. naa gaynde bi amatul bañ de. non doo ma loolu c'est maanaam sama maanaam sama jëmm ak sama comportement ak ak sama ouverture d'esprit maanaam taalibe la hmm. sama yaram lu ma entre entraîné dama koy jox comportement boo xamante ni muridu laa maanaam yar yarul yëkkat samay cër wàcce hmm. nit ñi loolu la ñuy jaaw nit ko am comportement ak ku amul comportement. am déet mais tey yoo xamante ni lu bëri man duma ma seen ku ma ci fekkoon tey géej ngay taxawaal wala ma gis leen ñoom géej dama lay attaqué dama lay daan sa kanam nga dem billaahi wallaahi taala te ñoom bu leen weddee yow woo ma fenn nga doxantu ko tigéey ba gis leen nga woo ma nga ñëw ma dawi ñëw ku ma fa fekk ñoom wulleegi liiru dama leen daan comme ndox duñu yëngu maa leen mën bokkuñu sax génération mel ni succès bi nee nañ succès bi ñu am te yow amoo ko boo duggoon ci làmb kenn xamu la te ñoom fi mu toll ni buñ duggee ci làmb ñëpp daw wulle liiru jaan ñu xew loolu moom bokk na ci li nga xamante ne yow yéene leen ko fi parce que Serigne Touba Mbacké ñoom amuñu succès ban succès la ñu am ñoom amuñu fig fe xam nga fig fe tubaab bu lay wax fig fe da lay wax nga bëreel xam nga loolu mooy fig fe nit diw balaa ngaa xam parmeresam diw falaa nga xam moom moo ko ban saar la bàyyi wàcc na ñaatoon ngay xam ni mais ñoom kan la ñu bëreel Lirou Diane bëri wuñu fee champion bu mag ngay lim di kan lañ fi bëreel ak kan euh, naa ak Xaadim Njaay Xaadim Njaay man numéro non non gër déggoo xaarim Ndiaye numéro dem ba bàyyi bëre feebar bëreetul nga ni na xaarim Ndiaye non bëri non loolu non du loolu dégg maanaam dafa tax laaj ñi mu bëree ma wax di wax xaarim Ndiaye xaarim Ndiaye xaarim Ndiaye bëri na ak yax yi jóob yi ki nii roi des arènes non di ko nuy di sama mbokk taale ku baax boo gisee te yàlla na ko yàlla yëkkatiwaat am de maanaam ku baax ndax am ñëpp rafet nañu xaarim Ndiaye moom dafa gis dama koy gis muy wax lu dëgg ak charia ñu ngi koy jox wàccuwaayam yëppam te boo gisee xaarim Ndiaye dem ba jël maanaam wul liiru jaan bu toppee xaarim Ndiaye nii nii nii xam nga xaarim Ndiaye te mbër la day dem ba deretam du ko mën a supporter moo tax dafa ñëw rek xàcc mu mu gis yooyu jarul ci làmb mais du ñu du làmb làmb boolewuñu la nit ki boo bëggee bëri dangay dem bëri say morom man ñooñu du ma seeni morom. am déet man ñi ma daanoon laa soxla. am waaw mi ngi noonu ponkal yi ma daanoon laa soxla. am déet ndax santan dañu bëri woon mu daan ma. am déet te waaw bu yoof dañu am ponk daf ma te ñooñu sama revanche daf ma ko ameel Lac de Guiers 2 daf ma amel sama ala kulli al. Lac de Guiers daa wax say wax. yow tamit non bi non bu waxul waxam ma wax waxam. Lac de Guiers 2. barke alxuraanu karim. bombaari non mais mais mais bëre bëre non non déggoo déggoo man Lac de ba ñuy bëree maa moom du nekkul woon combat. barke alx ba ma koy may déclenchement géejawaay mu daat ma foofu ma melu woon nii boo ko gisoon da ngay tiit sax barke alxuraanu karim. xam nga làmb boo dee xool ma daan laasana te booba laasana ku fa taxoon Pikine pour nga daan ko day métti nañu waxante dëgg hmm. bu ma daanee laasana daan Youssou Diop bu Caaroy am déet daan Pape Tine syndicat am déet bu ma ñëwee wax la ñooñ tey boo ñëwee tax ay Lac de Guiers ay deuxième combat ñan la fi daan xamoo leen fàtte nga leen ñu fi dara génneel ma Lac de Guiers ñu mu daan deuxième combat ñooñu kenn déggatu leen mbër yooyu kenn déggatu leen ah déet waxuma la nees du deuxième combat grand combat la dama ne ñu mu daan deuxième combat génne leen man spécial laa bëre pap feex laasana laa daan spécial musuma jaar ay quatrième cinquième spécial laa bëre daan laasana am de ñu tourné ñu jox ma yuusu jóbbu caare beneen spé ma daan ko indi ñu Pape Tine syndicat mu dóor ko mu daanu ma noonu la moom mu limal ma deuxième combat yu mu daan kenn xamul mbër yooyu ñuy tukki nañ ñuy def nañ ci gaal yi mbër yooyu ñu daan yooyu amul gis nga man ñi ma fi bëri ñëpp dañ leen a xam <laughs> ay ponk li mbër laa fi bëri ñu ngi fi ba léegi mais est que li ngay wax ni du tax la dëgg de bu la bu la kojee batikal li tooy ci yow non bu ma kojee mun murit kenn du ko koj barke Serigne Touba Mbacke bis bu ma kojee <laughs> Allahu akbar bis bu ma kojee. bo état de forme bi mu yor batikam. déggoon ñun état de forme bi ñu yor dafa raxas ñuy jàng. barke yonent Yàlla Muhammad <laughs> booba booba da ñun waa kër Serigne Touba lañ de dem bàq ak toog fii lañ yemale barke alxuraanu kërim lu ma gën a bëgg sax dem armée li bàq di leen garder di defar néew yi rangé la waat normal ndax ñëpp fa la ñuy bëgg ñun taalibe kefe barke alxuraanu kërim lu ñu Serigne Touba mayul billaay wallaay soxlawuñ ko barke maam borom Touba Cheikh Mat Bamba rek la ñu bëgg boolewuñ ci kenn Serigne tubaa di taalibe comportement di ñaanal waa Touba soxna Baali Mbàkke yàlla xare ko àjjana soxna may Mbàkke yàlla xare ko àjjana ñu mu fi ñoom day astu sëñ ak maam Jaara Mbàkke mu doomu daat ñoom mënuñu waxtu duñ leen tudd ndax ñoom ñoo fi ñu wëfil ñu bëgg leen